salaamaaleykum mbokk yi yéen ñuy suivre ci seen site internet Lutte TV point com ñu ngi leen nuyu waat di leen ziare ku ñu jàkkaar loolu Mohamed mooy Maysa Ndiaye première vice président du CNG. gannaaw ba ñu defee ñoom seen réunion bi nga xamante ne doon nañ ci dalal promoteur yi nga gis ni déggoon nañ ay coow am nañ ci ndax Fallou Ndiaye dénoncé ko def benn sorti démb waa presse bi am nu mu waxee moom mu seetaan ko am ay éclaircissement yoo xamante ne nee na daf ko ciy joxe. sorti Fallou Ndiaye boobu noonu ak réunion boobu nga xamante ne amaloon nañ ko seen diggante ak promoteurs yi que ni coow dafa amoon wala amu fa woon dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñuy suivre luttetv.com yëpp laaj ko yan leeral la mën a andi ci réunion bi nga xamante ni seqoon nañ ko ñoom CNG bu bees bi ci njiital Bira Sène moom mu nekk premier vice président bi ak ñaari kuréelu promoteurs yi maa ngi lay nuyu di la ziare may sa waaw Lamine maa ngi lay nuyu di di nuyu également say internautes di nuyu également Ahlou Lamb Sénégal. Euh, indiwuma ay leeral par rapport ak ay propos yu un certain euh, fallu Ndiaye tenir je tiens simplement à apporter des précisions par rapport à ahlu làmb par rapport à ñi ñi bëgg lamb te topp lamb mooy effectivement comme niñ ko xamee le président Bira Sène vient d'être installé comme président du CNG et comme ni ko ministre bi santé mooy nanga nga fàttaliku chaque fois acte booy posé ni biñ lay tànn dañ la tànn sur la base d'une concertation sur la base du waxtaan bu yaatu kon lépp looy doxal yow doxalee ko si waxtaan looloo waraloon ñu jéem ñu lal feuille dugut boo xam ni dañ ni woon li ñuy njëkk a def comme acte mooy nañ lal waxtaan d'abord lal waxtaan bi nag lawal ko ci pàcc yi nekk ci làmb yépp toutes les composantes de la lutte boo leen seetloo semaine bi recevoir nañ les ménager waxtaan ak ñoom recevoir nañ euh, les écoles et écuries de de lutte recevoir nañ les promoteurs si biir waxtaan boobu waxtaan yépp nag boo seetloo li euh, waxtaan bi am na solo am solo boo xam ni chaque composante génnee nga li nga xam ni noonu nga sentiré ni buñ ko yokkee wala buñ ko wàññee làmb ji na jëm kanam euh, il faut le reconnaître effectivement euh, merc vendredi boobu bi ñuy dajeek les promoteurs euh, waxtaan bi bi ñuy tàmbali jaar na yoon lépp tegu na ci raay benn coow amu fa benn xëccoo amu fa santi wuñ fa benn division même si on pouvait lire que on est on avait en face de nous deux personnes ou bien deux camps on pouvait pas l'accepter ñun mais au moins on pouvait la sentir waxtaan bi déroulé na dans de très bonnes conditions ku si nekk chaque promoteur posé nga li nga xam ne yaakaar nga ni buñ ko yokkee wala buñ ko wàññee euh, làmb dina mën a jëm kanam mais malheureusement bi ñuy terminer juste au moment de conclure euh, amoon na fa coow lu sew lu xewoon loo xam ni les gens ont profité d'une situation dañoo dañoo dañoo profité si benn état pour waxtaan wane seeni différence ñoom ñaax te loolu malheureusement taxul woon réunion bi di di di kii bi ñuy woote réunion waxuñu fa woon pour ñëw pour régler des problèmes crypto dañ dañu woon dañoo woote waxtaan pour que lépp luy jafe-jafe làmb lépp loo xam ni promoteurs yi gis nañ ni buñ ko yokkee buñ ko wàññee làmb mën na dem kanam loolu lañ fa waxtaanee ay alhamdulilah bi mu tàmbalee ba ba muy jeex loolu lañ fa waxtaanee point boobu nag nga xam ni ñëw na. noircir un tout petit peu la rencontre. C'était un problème crypto-personnel que très honnêtement, le nouveau CNG dirigé par le président Birassène du si hasardé wu parce que li ñu tax a jóg du di régler des problèmes crypto-personnels li mission bi ñu jox mooy nan la ñuy régler lépp luy concerner làmb. ok loolu ci nan la juddoo parce que Fallou Ndiaye moom ci ci ci ci point de presse dañ ko mën a tuddee bi mu doon def démb moom tuddul tur. mais wax na ni daal coow lu bari woon na trop réewoon na ba ba moom dafa alerte nee na bu loolu bu fa amatee pistolet mën na fa génn wala jaasi coow la lan moo ko lan moo ko sabab. non propos yu toll noonu bu ko génnee vraiment c' est exagéré de sa part très honnêtement parce que tollu wuñ foo xam ni coow li eggoon na foofu d' abord le contexte d' abord sax moo njëkk a muy euh, on n' était pas là pour régler des problèmes crypto personnels wax naa ko. mais en plus li ñu taxoon jóg mooy waxtaan suñu biir bi ñu sentiree ni y a deux camps benn bi qui parlait de Fallou Ndiaye ak euh, un certain je crois Abdoulat euh, seen coow xawoon na jug kaw ba finalement des responsables jug nañ waxtaan seen biir mais dégg naa mu ni euh, bu fa amaatee mais occasion ou prétexte même may ko loolu lañ dootul defati dans la mesure ou on est venu il fallait d'abord def li ñu tuddee prise de contact rencontrer les acteurs déglu les acteurs euh, recueillir seeni impression recueillir seeni li nga xam ni mën na dem kanam ak mën na dem kanam et je sais que pour ñu dérouler suñu action je sais que pour ñu mëne suñu liggéey à bien euh, soxlaatuñu rencontre yu mel noonu donc euh, na xel yëpp dal te xam ni prétexte bi tax sax loolu muy wax am ñun ñoo leen ko dootul mayati ba ba ba lool di am. rencontre est-ce que lu mën a ñàkk la.

Euh, c'était normal parce que on venait d'arriver mais pour ñu liggéey dëgg dëgg dëgg dëgg on a d'autres moyens et d'autres astuces. bureau bi nga xamante ne tey jii ñoo nekk ci ginnaaw ci ginnaaw ci ginnaaw euh, président Bira Sène est-ce que respect bu mat sëkk ñi nga xamante ne ñoo ne membre de bureau yëpp est-ce que ñoo ngi koy ñoo ngi koy ñoo ngi koy ñoo ngi koy wane maanaam Bira Sène mu ngi def. ngeen nangu mu ngi dindi ngeen di nangu est-ce que respect bi daal mën na seen diggante ak moom. waaw ah, foofu aussi am naa lu ma lu ma metti trop bu ma déggee la version de Fallou tamit euh, quand il parle de manque de respect très honnêtement mooy bañ a delloo ce qui est à César ce qui est à César euh, boo seetee conduite bi ñuy conduire suñuy réunion yéen ñi fa jot a fekke au moins mooy on sent que y a l'autorité on sent que kilifa ngi fi à la personne de Bira Sène toutes les autres personnes qui sont autour de lui euh, bëri na rencontre yu ñu fi def amul benn boo xam ni dégg nga fa coow amul benn boo xam ni ku ñu joxul kàddu am nga sañ-sañu prononcé wu et les exemples sont là à commencer par lui-même réunion bi mu fekkee muy réunion boobu muy wax euh, ba tàyyi nit bëgg na wax ñun ko vous nawee pas droit à la parole monsieur continuer ou x continuer donc ça vraiment euh, mooy tuumaal doomu aadama pour des raisons xawma ko vraiment les raisons qui yu ko motiver ba mu wax loolu je l'ignore mais très honnêtement du cëram et maa ngi jéggalu nag mais je sais que euh, de tels comportement c'est sûr que on pourra pas laisser faire jamais. ok loolu am na solo mais mais ku nekk Alioune Sarr liñ ko doon liñ ko doon liñ ko doon maanaam duute baaraam mooy manque de communication sévère bi nga amoon na digganteem ak nit ñi est-ce que tamit gisoo leen loolu mooy yar bi mën a yar waa axlu làmb parce que da ngeen a ñëw di négocier ubbi bunt yi donte man bokk naa tey ci ñi nga xamante ne ma doon kaas ni Alioune Sarr dafa tëju affaire yooyu noonu mais gis nañ ni ubbeeku am na mais ubbeeku bi est-ce que ëppul gisoo ne ubbeeku bi Bira Sène yéen ngeen ubbeeku ko est-ce que ëppul. ubbeeku bi mënul ëpp parce que da di da di des choses boo egsee li ngay njëkk a def mooy di nga ubbeeku déglu nit ñi d'abord. di nga ubbeeku recevoir d'abord les gens peu importe seen grade peu importe seen statut peu importe cër bi ñu am si làmb foog nga tijjil ñëpp déglu ñëpp xool ñëpp à partir de là nag si ngay soog a yor sa tame si ngay soog a yor sa filtre xam kan nga war a déglu kan nga warul déglu kan nga war a sa bunt ak kan nga war a tijjil sa bunt c'est clair maintenant sànq maa ngi lay wax da ngeen ma déggul mën leen prétexte bi taxoon loolu am sax moo dootul amati parce que on venait d'arriver xam nga booy soog a egsi si mbir il faut nga tijji yaatal déglu tout le monde li nga doo dégg si mbedd mi wala di ko gis si mbedd mi il fale nga vivre ko et ça on a eu la chance ou la malchance je ne sais pas de le vivre en direct et ça nous donne encore des leçons ça nous confirme si suñu position comme quoi effectivement il fallait nga yaatal tijjil pour tout le monde déglu ñëpp segg li nga mën a segg jël li nga soxla li nga soxlawul nga teg ko de côté donc bul ragal dara euh, ñi ñu war a déglu dinañ leen déglu ñi ñu war a tijjil suñu bunt dinañ leen tijjil suñu bunt mais également yat bi foofu mu war dal dinañ ko dal dinañ ko fa caw tamit. ok loolu am na solo yat bi mu war a dal dangeen ko dangeen ko fa caw ay question moo andi woon coowal bi ni ñu déggee ni Fallou Ndiaye waxee laaj ndax promoteur am na droit nekk promoteur ba pare am carte manager réglement yi lan la wax ci lool man man personnellement maîtriser wu ma règlement yi te bëgg na maa ñëw CNG sax ngeen jox ma règlement yi ndax yaakaar naa loolu du ngeen ko bañ lan la règlement bi wax loolu est-ce que man am naa droit tëgg combat ba pare di engager mbër est-ce que am naa droit di engager mbër ba pare bokk bureau CNG. bon il est prévu même ay séance de distribution de tout ce qui est réglement et euh, de lutte on est en train de faire le tirage pour ku si nekk composante bi. ñu mën dem ba si yow jox la benn exemplaire soo ko mënul jàng ñu jàngal la ko soo mënul interpréter ñu interpréter la ko ba nga xam ni di nga mën a conformer wu par rapport di texte bi wax loolu dina wàññi coow lu bëri dina éviter beaucoup de dama foogoon dama yaakaaroon dama lii dama lii dama lii lay la ñuy bañ dañ bëgg ko vraiment c'est vrai que comme la loi le di nul n'est censé ignorer la loi mais on veut aller au-delà de sa dañ bëgg carrément jël document bi si boppam tegal ko nit ki interpréter ko ko expliquer ko ko s'il faut même démontrer ko euh, li ci texte bi wax ñu ñu def ko on est prêt pour ça mais ça demande du temps et on va vers ça par rapport à la question bi nga posé effectivement amul droit euh, amuñu droit doon promoteur doon ménager mais foofu aussi dañuy indi benn clarification mooy lan lors de cette réunion la personne mën na fa teew avec plusieurs casquettes. Il peut être président, il peut être promoteur, tout comme il peut représenter un promoteur parce que gis nañ ko fi bataille gis nañ fi bataille des gens yoo xam ni le promoteur lui-même ki jënd carte bi on le voit pas au CNG il envoie un intermédiaire et même si texte yi c'est marqué le promoteur ou son représentant donc loolu aussi c'est clair du woon débat débat bi moo doon lan la promoteur yi di jooy lan lañ bëgg ñu saafaral ko mais débat bi du woon kii war na fee toog wala kii waru fee toog kii ni mu fi toogee déranger na ma bu dee pour defar dong vraiment que Lamine ñëw toog wala Lamine génn bu dee dañoo bëgg a defar kese kese kese kese waruma déranger man may sa njëriñ. mais question bi ba léegi ñëwoo ci ndax mën na maa tëgg làmb ba pare engagé ma lan la ci euh, euh, euh, règlement yi. répété waatal sa question bi. man ma nekk promoteur nekk manager. est-ce que moo est-ce que man war na ma am carte promoteur ba pare am carte manager. non du mënoo boole ñoom ñaa amandoo ko. mais am na ñu ko def ci bureau bi. Euh, lu ñuy defaraat la lu ñuy seggaat la te defe naa réunion ba tamit génne na ko euh, faay yooyu yëpp bu fi bu dee am na faay yooyu yëpp dañ koy segg toggaat ko ba mu ñor ku nekk sa statu bi nga yor ñu bàyyi la si sa statut nga jëfal ko ba mu mat sëkk. même réunion bi wax na ko au cours de cette réunion là qui est promoteur, qui est ménager, qui est ceci, qui est ceci, qui est cela. Euh, on a même donné des instructions également à la direction administrative pour que mu gën a si application délivrance des des des droits maanaam ki war am carte ménager ñu jox ko cartam ki war a am carte promoteur ñu defal ko également sa carte de promoteur yooyu yëpp réunion bi définir na ko donc daal leer na. Euh, ki féete fii na féete fii en tant que ménager ki féete fii féete fii en tant que promoteur ku si nekk doxal sa sa sa sa rôle. ok membre bu bu bu bu tax tey coow lu judd par exemple waxuma sax moo tax coow lu judd mais damay tudd directement turam parce que moom parfois ma jël jël mbër sax wala ma jël nit mu gis ni na ma waxee waruma ko waxee mu woo ma muy Abdoulaye Ndiaye mm-hmm. ci wax bi dégg nañ ko ci. moom tamit CNG lan la warloo ak moom bu fekkee loolu ci moom la jóge bu fekkee ci moom la joge wóoruma mais su fekkee ci moom la joge lan la CNG warloo ak moom. bon xam nga d'abord pour pour CNG mën a warloo diw si benn mbir il faut d'abord ñu mën a quantifier la chose qu'est-ce qui s'est passé comment ça s'est passé daal di définir tous les contours. en fonction de ni ñuy définir ce qui s'est passé comment ça s'est passé on donnera une suite à ça forcément cest Euh, nekkuñu fi pour kenn wala pour neexal kenn wala pour wax loo xam ni day neex diw wala naqay diw euh, bu amee lu xew dinañ ko càmbax segg ko xool lii lan moo ko waral ak lu ko indi xool yan conduite à tenir par rapport à la suite s'il faut une sanction positive ñu def ko s'il faut une sanction négative ñu def ko jàmm ni ñooy donc tey à l'heure où je vous parle je peux pas mënuma see prononcer wu mais li lee ba lee mooy chaque fois que ñu daje dinañ tiire les conclusions daje bi lan la jur si lu baax lan la jur si lu ñu waa moytu lan la jur si lu ñu waa améliorer et cetera et cetera depuis qu'on est là à chacune de nos rencontres bu ñu dajee ba pare dinañ tirer les conclusions et que tànk yooyu le président Bira Diouf. ok dalal ngeen ngeen ménagères ak ñan ngeen dalal. pour le moment dajal na dajal nañ les avec les ménagères une excellente réunion boo xam ni on sentait pas qu'il y avait des problèmes crypto personnels là c'était un groupe de ménagères très disponibles qui sont à la service de la lutte ñoo ñëwoon réponde poser nañ ñu fa pas mal de de problèmes yoo xam ni ñu ngi koy dund ci seen profession. biñ ci paree ñu recevoir les promoteurs foofu aussi vraiment à part ce couac noté soulever nañ fa pas mal de problèmes yoo xam ni buñ ci taxawee tuuti làmb mën na dem kanam le lendemain samedi on a reçu les écoles et écuries de lutte foofu aussi plus de deux heures de temps de trois heures de temps on a discuté où les écoles et écuries de lutte ñëwoon nañ surtout maa ngi euh, euh, maa ngi rappelé wu la présence massive de ARELS ñëwoon nañ en masse plus d'autres écuries et cetera en masse ñëw ñu échanger qu'est-ce qui va qu'est-ce qui ne va pas pourquoi les écuries sont comme ça pourquoi lii pourquoi lii pourquoi lii le rôle de l'écurie le, le rôle de l'école de lutte et cetera ño cetera ñoo ñëpp ñu harmoniser semaine bi également on, on va vers d'autres rencontres mais pour le moment je laisse la primeur au président le temps mu def les convocations mais il y aura d'autres secteurs également c'est sûr dinañ leen rencontrer semaine prochaine. mën nañu xaar ñoom tam seen tour. bon je sais pas je peux pas dire tout de suite dinañ xaar seen tour mais une chose est sûre et loolu leer na moom mooy toutes les composantes de la lutte le président Bira fas ne na leen dalal xawma ban cadre la preuve rece Manga côté lutte simple également à reçu les acteurs du monde de la lutte simple dimanche passé donc même chose la dañuy dérouler c'est-à-dire on peut pas tout de suite dire que on va recevoir tout le monde tout de suite parce que c'est pas possible après tout on a une vie à mener donc li leer ba leer mooy dinañ recevoir toutes les composantes même vous, la presse, on, on aura à vous recevoir. dinañ recevoir calendrier bi mënuma ko définir tout de suite mais jàpp leen ni vous ne serez pas surpris demain si vous entendez que euh, le CNG est en train de recevoir telle composante ou telle autre composante. cooli commencé naa bari est-ce que tamit du leen décourager la. <laughs> non vraiment Lamine lii du coow hmm. non non honnêtement du coow. ngeen ko xaaroon ngeen ko. non xaar nañ pire que ça. xaar nañ pire que ça noo nekk dans un monde boo xam ne yàgg nga si gis nga si façon bu neex et boo rappelé wu déjà le président Alioune Sarr façon bii ñu ko delloo les derniers honneurs bu dee honneur laa ko mën a tuddee entre guillemets donc il faut s'attendre à tout lii du coow vraiment mais c'était bon quand ñu préciser c'était bon ñu clarifier pour que ñu xam ni ay nit bu ñu waree ànd war a jëm fu sori il faut ñu teel a waxante dëgg on acceptera tout tout sauf vraiment di wax loo xam ni amul wala di wax loo xam ni euh, du pour defar day yàq vraiment ça moom c'est des chose euh, importantes yoo xam ni on tenir nañ ci di invité nag toutes les autres composantes boo euh, si mënee conformer wu c'est alhamdulilah boo ko mënul tamit boo mënee jël beneen yoon wala beneen piste bu dul làmb ji tamit alhamdulilah. ñëpp ahlu làmb lan nga leen di mujjee wax. mu nekk promoteur ak seeni kuréel mbëri seeni kuréel presse bi ak seeni kuréel lan nga leen di wax. sama dernier message daal mooy di inviter vraiment toutes les composante de la lutte comme quoi c'est une nouvelle équipe qui est là lii ñuy def du récréation lii ñuy def du am jot lii ñuy def du question dañoo amul lu ñuy def lii ñuy def c'est parce que c'est dans le cadre de notre mission on vient d'arriver on écoute tout le monde on reçoit tout le monde si biir loolu dinañ segg li ñu war a segg li si baax dinañ ko jël teg ko si kaw table bi li nga xam ni mën nañ ko yokk dinañ ko teg si table bi ensemble avec tous les acteurs ñu xool nuñ koy yokke li nga xam ni baaxul dinañ ko tegaat si table bi également ñëpp di gis ñu xam ne lii baaxul c'est à éviter ñu teg ko suuf donc maa ngi rassurer tout le monde que c'est une nouvelle équipe qui est mais nañ jàpp ni fulla bi ak fayda bi ak lépp lu wax pour que ñu réussir suñu mission kenn mënuñu ko xañ dinañ ko jël ba mat sëkk te dinañ ko appliquer également à la lettre. vraiment c'est lu la fàttee laaj ma ko fàttee laaj parce que ministre bi gis nañ ko mu ne ubbi saison bi ci yéen la des. Mm-hmm. kañ ngeen ubbi saison bi nam nañ làmb de. Euh, mënatul des si ñun dans la mesure où ñun carrément administrativement on a démarré euh, la saison on a écrit également benn protocole sanitaire bind nañ benn protocole buy wanee ni yan disposition mën nañ ci organiser làmb bind nañ ko semaine bi on est euh, pour le ministre pour monsieur le ministre adressé à monsieur le ministre qu'on va lui déposer euh, ou après-demain plus tard Euh, donc on a démarré administrativement tey tey tey mbër bu bëgg licence su demee gis la direction administrative mu jox ko licence am euh, ku bëgg carte promoteur pareil ku bëgg jël une date également boo demee CNG également tijji nañu les fourchettes de dat donc administrativement le CNG ubbi na ay buntam mu desoon maintenant l'organisation pratique des euh, des de des opérations de lutte kooku aussi par rapport période bii ñu nekk muy Covid bi dressé nañ benn protocole sanitaire sous la conduite du président de la commission médicale euh, Thierno Thierno Ka bokk ak suñu président Thierno Ka également euh, Abbas Thierno Ka euh, dressé nañ ko ba on l'a remis on vient de le remettre au président Birasène pour que mu mën ko transmettre à monsieur le ministre mais d'après les informations kona Le dernier mot revient au président de la République qui, au 14 mars, 15 mars pour être précis, avait décrété l'arrêt de toute activité de lutte. donc je crois que bu décret ñëwee décret mooy ñëwaat également pour normalement moo war a ñëw pour yëkkati ko. soxla nañ yéen tamit ngeen def pression def pression ndànk-ndànk parce que instant bi ñëpp nag bàyyi nañ leen ñun rek lañ tënk football bi sax ñu ngi ko def donte mbooloo amu fo mais. Siri Siri Diop ngay tëgg Waale ngay tëgg Youssou ngay tëgg Pape Diouf ngay tëgg yéen nag dañoo bëgg nag instant bi ngeen def pression ndànk ki ministre bi di waxtaan ak moom moom tamit mu def ko ci président de la république ñu bàyyi ñu bëre ndax namm nañ làmb lool. non le président le ministre même lui-même déclaré nee na vraiment il est temps qu'on retrouve les activités sportives parce que un des sports sans activité sportive c'est dafa xaw a géej si moom donc moom si boppam moo ko njëkk a donc avec le président Bira c'est sûr que ils vont faire le nécessaire pour que très rapidement ñu mën ñoo may occasion enfin ñu delluwaat ci arène yi. am nga yaakaar mois de janvier dinañ dellu ci combat. Euh, je laisse le mot au président et à monsieur le ministre. kontaan naa ci yow. jërëjëf maa di sant di leen di leen féliciter également si liggéey bi ngeen di def merci.